Aujourd'hui, donc, nous nous sommes déplacés euh, euh, donc, euh, au stade Ladjo, euh, donc en compagnie euh, des membres de la fédération, accompagnés de, de Monsieur le Préfet, mais aussi euh, du président de la Ligue de, de Thiès et surtout, bien entendu, du directeur des infrastructures du ministère des Sports. Cela afin d'évaluer les travaux en cours au niveau du stade, qui est aujourd'hui le stade de, de l'équipe nationale A. mais aussi de notre, notre sélection. Et qui, depuis euh, euh, deux ans, accueille aussi beaucoup euh, de compétitions internationales comme sous-régionales. Je pense que par rapport au cahier des charges qui est fixé par la CAF dans le cadre de sa politique d'octroi des licences, euh, nous sommes obligés de faire une mise à niveau du stade pour le rendre euh, donc en adéquation avec euh, les, les prérequis nécessaires pour être homologué. Et aujourd'hui, euh, l'État avait eu à réaliser un certain nombre de travaux que la fédération est en train de, de compléter. Et nous avons pu voir que dans beaucoup de domaines, euh, des améliorations sont en train d'être faites, le deadline, c'est pouvoir être prêt pour les matchs euh, du mois de juin, donc qui comptent euh, pour les qualifications de la Coupe du Monde. Et ces travaux se situent à différents niveaux. Il y a d'abord, euh, bien entendu, ce qui est le plus important pour un match de football et pour les acteurs de football, c'est la pelouse. Vous le savez, euh, le ministre a donné les instructions pour fermer le stade afin qu'on travaille d'arrache-pied à rendre cette pelouse euh, la meilleure possible et qu'elle puisse répondre aux normes internationales. Nous avons aujourd'hui des joueurs qui jouent dans de grands clubs, qui jouent de très grandes compétitions en Europe et qui ont l'habitude de jouer, je dirais, sur euh, euh, des, des, des, des moquettes en termes de, de, qualité de gazon. Et il est important pour leur performance et aussi pour la qualité des images que nous proposons aux, aux amateurs de football, que cette pelouse soit bien faite. Après la pelouse, euh, nous nous sommes attaqués depuis quelque temps euh, donc, euh, à améliorer euh, la situation des, des spectateurs. C'est ainsi qu'il euh, a été décidé de transformer les tribunes pour que ça devienne des euh, tribunes avec des places assises. C'était euh, des tribunes en dur et nous avons décidé de mettre des sièges avec dossier dans l'ensemble des tribunes. Vous le verrez également prochainement. Euh, pour la partie VIP, des sièges VIP seront disponibles pour vraiment faire en sorte que nous puissions non seulement euh, savoir exactement combien de spectateurs sont là, puisque ces sièges-là, nous avons l'obligation de les numéroter, mais aussi que les gens soient dans un confort, les spectateurs qui viennent au stade, et dans la sécurité requise. Nous avons déjà réalisé aussi la rampe pour les personnes handicapées, ça c'est une exigence aussi de la CAF. Et euh, autrement aussi, il y a d'autres aspects qui étaient importants, ce sont euh, les blocs toilettes au niveau des différentes tribunes. Aujourd'hui, après avoir réalisé euh, les blocs toilettes euh, de la tribune découverte, euh, nous sommes en train de faire les blocs toilettes des quatre tribunes euh, virages et nous sommes aussi en train d'agrandir les vestiaires, euh, aussi bien euh, de l'équipe nationale A que des visiteurs. C'est important. Et nous avons aussi aménagé les bureaux euh, qui servent aux officiels de la CAF. La salle de presse ne sera pas en reste. Tout cela, c'est pour vous dire que euh, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied, de la main dans la main, avec les autorités, le ministre euh, Mataba qui nous a envoyé ici avec euh, le 10 pour pouvoir évaluer tout ça. Les travaux seront répartis entre la fédération et le ministère. pour que ce stade-là, en attendant que les autres infrastructures soient prêtes, notamment le stade du Sénégal à Diamniadio, puisse être euh, euh, euh un stade référencé, un euh, stade de niveau international, parce que quand même, aujourd'hui, euh, on sait avec le niveau de notre équipe nationale et de notre football, il est important d'avoir une infrastructure de qualité qui puisse accueillir toutes nos compétitions. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Une fois que tout sera fait, notre responsable des licences va à la CAF qui va envoyer les inspecteurs pour évaluer. Nous bénéficions actuellement d'une dérogation jusqu'à la fin de la saison 2020-2021, mais ce que nous voulons, c'est une homologation définitive. Je n'oublierai pas aussi tous les aménagements des voiries du stade, euh, des parkings euh, qui seront à faire. Et ça aussi, nous avons décidé avec le ministre euh, de travailler la main dans la main pour réaliser ça. Mais sans oublier aussi les autorités locales de Thiès, les représentants de l'État qui vont nous aider parce que nous avons prévu de faire aussi des, des journées de, de, de, nettoiement pour vraiment rendre tous les espaces euh, autour du stade euh, très propres, mais aussi euh, euh, mobiliser les gens pour que le stade soit sécurisé. Tout cela participe à faire de ce stade euh, Lat Dior un bijou qui sera donc à la hauteur euh, des attentes des Sénégalais aussi, à la hauteur de la dimension de notre équipe nationale et de l'hospitalité que nous voulons offrir à toutes les équipes qui vont venir ici jouer contre le Sénégal. Et je dois dire d'ailleurs qu'un pays dont le stade a été suspendu nous a sollicité pour pouvoir jouer au mois de juin ici. Donc nous aurons un match ici et un match à l'extérieur. Et très certainement, quand nous serons à l'extérieur, si euh, avec le, la bénédiction de, de, du ministre de tutelle, euh, euh, pourra jouer ici au Stade La Dior. Donc ça montre que la nécessité de, de, de réaliser cette infrastructure, d'en faire une infrastructure de qualité, ne profite pas qu'au Sénégal, mais aussi à des pays qui aujourd'hui son euh, mal lotis en termes d'infrastructure. Visite boo xam ne visite yi nemmeeku chantier yi nga xam ne ñu ngi ci euh, depuis ay euh, weer mu jëm ci gën a euh, eesal li nga xam ne mooy Stade Lat Dior jamono ñu toll état bi sumb na ay chantier yu bare comme dooragul xam nañ ne suñu équipe nationale A comme suñu yeneen équipe yi Lat Dior la ñu am pour mun dalal suñu suñu suñuy adversaires yi et continuer di di recevoir ici parce que xam nañ fii fii ci Sénégal parce que xam nañ ne CAF temps yi ak FIFA dañ jël ay ay ay ndogal yoo xam ne dañu ne stade boo xam ne stade yembul pour mën a organiser ay match football parce que dafa am cahier de charge boo xam ne bu tar la doo mën jouer donc euh, ci loolu la nekk depuis boobu ba léegi euh, song nañu li nga xam ne. Euh, mooy euh, euh, mooy maanaam infrastructure bi nga xam ne mooy mooy bi jiitu ci football mooy pelouse bi maanaam gazon bi ministre jël na ndogal pour tëj stade bi pour ñu mën koo defar ñu ngi ciy liggéey à part jaraaf bi nga xam ne dafa nekk Coupe d'Afrique te dañu ne kenn dootu ci jouer donc ñu ciy jéggalu nag équipe bu Thiès yi parce que xam nañ ne ñoom dañ ko soxloon mais comme équipe nationale soxla bu ñu ko defarul ba mu jekka donc dañuy mujjee comme li ñu daloon euh, ay at si ginnaaw maanaam génn di euh, football yi feneen ci biti donc moo tax ñu war a def travaux yooyu bu weesoo loolu tam yeneen travaux ñuy defar mooy maanaam toogu yi nga xam ne mooy nekk si tribune bi yëpp day nekk xam naa dina toll ci lu jëm ci ay douze mille places yoo xam ne ñëpp ay day am ay toogu yoo xam ne CAF moo ko laajte te commencé nañ ko bu ngeen gisee tribune couverte bi def nañ ko defoon nañu tribune découverte bi mais dañu laaj maanaam ay toogu yoo xam ne day am dossier maanaam weeruwaay si ginnaaw donc léegi yooyu dañ koy dindi pour mën fa def yeneen mu ngi ñëw ak li nga xam ne mooy euh, euh, siège VIP yi pour loge officielle yi muy nekk ay chaise moderne yoo xam ne vraiment loolu bu ñu ko amee xar kanamu stade bi dina changer trop te ñii ñëw tam di seetaan si wala ñii ñëw di jouer dinañu am mbégte ñëw si stade parce que stade day dund bu weesoo loolu tam am na yeneen jumtukaay yoo xam dañ ko soxloon mu jëm ci ay toilettes parce que doyul woon bu ñuy xool bu baax euh, tribune couverte bi rek moo amoon toilette defoon nañu ay tubi ay euh, toilettes fële ca découverte bi ak ay urinoir loolu la ñu nekk di continuer nii pour def ko ci euh, virage yi quatre virages yëpp bu nekk day am ay ay toilettes ñu tamit euh, def ay travaux ci li nga xam ne mooy vestiaire u équipe yi gën ko yaatal yaatal douche yi sangukaay yi doy ak maanaam gaanuwaay yeeg yëpp lépp la dañ koy defar pour que mu gën a yemba gën a jekka pour ñi nga xam ne moom la ñu dalal nga xam ne ñu am habitude nekk ci condition yu rëy rëy fi ñuy joue ci seen dëkk bu weesoo loolu tamit euh, jàpp nañu ak euh, euh, suñu kilifa ministre Matar Ba gën a defar li nga xam ne mooy alentour yi stade bi mooy parking yi mooy tamit li jëm ci salle de parce que presse bi tam dafa am rôle bu important bi muy jouer dinañu defar aussi bloc médical bi pour mu gën a mët équiper ko nu mu waree donc loolu yëpp daf ñuy may rek ëllëg CAF mun ñu jox homologation définitive maanaam fi mu nekk nii euh, saa ñu waree jouer dañ ñuy defal dérogation dérogation bi ñu am dinañu yóbbu ba saison bii jeex mais bu jeexee coow li mun naa moo tax ñun nag ñuy gàttandu loolu ne il faut ñu defal lépp ba mu yemb ba mu mët ba xam ne dañuy am suñu homologation définitive fii ba suñu stade yu mag yi nga xam ne euh, président Macky Sall daf ñu ko bëgg a jagleel pare dinañu mun di dalal euh, équipe yi fii rax ci dolli sax comme ni ñuy demee mois de juin am na dëkk boo xam ne daf ñu ne. fekkee ñun nangul nañ ko ko bëgg na dalal équipe am fii parce que moom CAF daf ko wax ne mënul dal dalal si dëkkam donc bu ngeen xoolee tey jaraaf bi muy joué ak euh, benn équipe boo xam ne Burkina la nekk équipe boobu mu ngi ko dalalee euh, fële ca Benin parce que dëkkam euh, mënu ko woon dalal donc li ko indi mooy interdiction yi nga xam ne CAF da ko def ñun nag loolu la ñuy artu moo tax ñuy defar may remercier donc euh, le directeur des euh, des infrastructures bu ministère des sports nga xam ne moom tam jàpp na ci mu ngi ci ak ñun ci ndog ci maanaam ndigali ministre bi te ñu ngi xool nu ñuy mën a mëtalee lépp nu mu gën a gaaw di remercier monsieur le préfet bi déplacé wu depuis su sànq nekk ak ñun ak autorité euh, locale yu Thiès maire bi gouverneur euh, président conseil euh, départemental président de la ak ligue bi yëpp ñuy wax rek ne ñu ngi jéem a fexe daal pour bu nit yi di ñëw ak autorité café bu ñuy ñëw def inspection ñu gis ne am nañu stade bu mujj ayib boo xam ne mën nañ ko ràññee ci stade yi gën a jekk euh, en tout cas euh, yi Sénégal am wala fii ci sous région bi